bërëb bu yees bi ñu toxal commerçant yi nekkoon fële ca marché Sandaga wante bile marché jaaykat yi noppi wuñu di ka ngaañ ndax ñu fa duggee ba léegi ay jafe-jafe rek la ñuy dund. suñu nekkin xanaa métti rek ndax euh, wax dëgg yàlla nit ñu fi andee ba ba suñu jonn yàlla tey jii aw métti rek lañ fi nekk marché bi fi ñu ko def roqe na marché bi nit ñu andee ñun métti nañu ndax. Euh,

waaw dara amu fi. diiru tabaski ak léegi ñuy xamle ne jaayuñu dara. depuis tabaski ba léegi bi ma fi exposé ba léegi lonk bagage yi nii depuis tabaski ba léegi benn client bu fi dugg ni ma ñaata amaguma ko man man laa wax man li may dund laa wax benn depuis tabaski ba léegi gisaguma fi kenn ku ne ma ñaata ku déggul ñaata mënoo jaay. fii la ñaar fi kon 20 maa fii la aw ma jaay ma dërëm am naa ma kenn jaay bi dara daal lañu jaay dara toog xool rek. da xëy lakk sama xaalis donc passe de le soir naka téeméer am fi 500 mooy 1000 francs dégg nga borom kër fay courant fay ndox jënd gaz da métti la ma roon dañ dañ doon jaay mais jaayutuñ dañu xëy si ñëw toog dara amu si ba tax na ñenn si ñoom di tëj seeni place ngir dellu fële ca marché Sandaga ngir def marchand ambulant. lii man su ma ko mën na yor ambulant ji ko dama koy ambulant su ma mën a am feneen foo ma nekk dama koy jóg bu ko feneen waaye dépend nga yor bagage yoo xam ni amoo foo ko dugal foo nga doon denc sa depp mu jigale jëlee nañ ko fa amoo fenn foo ko teg il faut nga ñëw toog ko waaye toog la toog boo xam ne tooguñu fi toog boo xam ne toogaayu bànneex la wala toogaayu mbég ndax kuy toog di liggéey am lu lay xaar soo sañoon saa boo xëyee am loo yóbbu sa kër waaye dip boo fi ñëwee booy xëy da ngay génn booy wàcc da ngay génn amul lenn loo xam ne ñu ngi fiy toog pour yaakaar dara marché bi daal ñi ñoo fi mën a nekk mooy ñi nga xamante ni amuñu fun jëm wala yoruñu lu mën a wute feneen ak ñàkk am fun wut waaye ku amoon fo toog doo fi toog tey man su ma amoon feneen fi fana waaye ñu si bëri même bu nekk nekkoon à côté de moi ñu si bëri ñi ñu ngi ambulance table quelque part marchandises en quelque sorte marchand ambulant. bien sûr damay voilà parce que parce que toute une journée c'est ça le problème trop trop trop trop trop accompagnement di jamais vu Sénégal rek la. kii di Moustapha Diouf yore wàllum organisation ànd taxawu Sandaga mu ngi joxoñ baaraamu tuuma autorité yi. waaw xam nga ñooñu am na ci ñoo xam ne ñu ngi tëj seen place yi dem defi marché ambulant ñooñu euh, lépp ci autorité yi la rek parce que nit ki su fekkee ne da nga koo jëlee fa mu nekk da ngaa war ànd ak moom ngeen saytu la ngeen di def euh, ma euh, cantine yi xam nga ne lii matut un xam nga lii boo dee jaay xam nga ne mënoo fee toog dugal fi sa bagage sax toog ci biir mënta ne loolu yëpp ci ñàkk la. nit ki nag su fekkee ne dangay def dara te liggéeyutu xalaatoo ko dangay def rek loo xam ne échec lay mujj fi mu nekk ni nañ fi dépassé nañ fi 500 millions mais 500 millions foo ko dépassé normalement ku ñu waratoo ci am naa ne critiquer moo gën a yomb di ko di ko féliciter. loolu tax ñu am njàqare ak tiit ci seenub ëllëg ñuy wax autorités yi ngu gëstu seeni problème nu mu gën a gaawee. ci yoon war na dédommager nit ñi parce que man cantine ba ma newoon man maa ko moom maa ko jënd à 10 millions 500 mille. nga déggati nit indi ko foo xam ne un million di ko depuis ñu nekk fii ça fait presque bientôt un mois ndax le 9 laa installé le 6 laa commencé defar installé sànc le 9 ba léegi amul benn autorité bu fi ne ñi fi teg fii responsabilité bu ñu mën jël ak weñ sax amul pouvoiru déplacé ko yow mënuñ information préfet dañ ko daan dégg régulièrement soo ko mu jël nga

loolu tax ñu am njàqare ak tiit ci seenu ëllëg ba tax na ñuy woo autorité yi ngir ñu gëstu seeni jafe-jafe ci nu mu gën a gaawee. chaque jour sax nag maa ngi chaque jour heure bu mu ñëwee naa jaay am naa fi xame tudd naa fa indi ay doom ngir ngir sànnak mais fii kenn ku fi. fa ñu nekkoon dañ faa nekkoon ci dara fi ñu indi dara amu fi dara amu fi dañoo jëlee fële. wax dëgg fa yàlla dafa ñu jëlee ay place yooyu ay millions la doon jar ay millions lañ fa nekkee woon di gagné mais fii da gagné wuñ fi dara ñu fi ñëwee ba léegi suñu poche dundee waaw war nañoo ñëw xool nan la ñuy def ak ñun waaw parce que am na yeneen waroon a ànd ak ba léegi gisaguñ ñu ngi ñëw toog fii di xaar yàlla waaw champ de course la waaye xar yàlla lañ ko tuddee waaw métti na trop. commerçant yi nekk ca marché champ de course jaaxle ci seenu ëllëg di yaakaar marché Sandaga bi ñu commencé di defar. pare ba ñu dellu ci seeni palaas wante ñu ci bari dañu yaakaar ne nguur gi daf leen di doon ndax rekk ginnaaw bu ñu seetloo ñi ñu bari ci commerçant yi ñu yóbbu woon fële ca champ de course ñu ngi delluwaat ca Sandaga seeni tontu mooy mbir mi ca Sandaga gële ñu leen jële woon la gën a doxee